asalaamaaleykum waa chérie maîtresse nuyu naa leen ziar leen doleen seen wàccuwaay ah maa ngi ziare waa groupe bi yëpp mais nag tamit euh, yen yoo xam ne waruñu ko def ci théâtre bi parce que lu demee ne Marème tey lim def noonu lim demee lim lim de mer ah, ni mu def seex mënoo toog ak sa njaboot toog ak sa say ay xale tamit di seetaan yenn yi parce que dafa yàq xale yi te xale yi tamit bëgg nañ série bi bëgg koo xamante ne nii heure ba nga xamante ne nii heure war a commencé jot na ñoom ñëpp dañu bàyyi seen liggéey ñëw di seetaan théâtre bi kon théâtre bu ne dafay yeete mu dem ba a yàq dafay doy waar trop man naan suma sañoon ñu gën a sellal affaire yi gën a xam naka la ñuy jouer tamit théâtre bi parce que Marème li mu def na trop waa série bi neex na trop mais nag quand bi daal moom moo xaw a doy trop te suma sañoon daal Marème moom limité langage am ñu waxee ak jonge mën naa toll fenn fu nekk mën naa defee tamit façon jafe bu nekk mën na ko def même pas nag jaar ci digg ba ndaxte ni ñu waxee ak seex mën na koo limité ba mag ñi xam ne ñu ngi toog di seetaan série bi dinañ comprendre mais xale yi duñu comprendre wante nag mu jaar ci digg ba am na loo xam ne daal ñaawlu nañ ko suma sañoon nag amu xool ni ñu doxale bu baax tamit limité langage am ba nga xamante ne ni xale yi suuraale xale yi bu baax sóoraale xale yi baax daal baax na si moom ak kilifa yi nga xam ne ñoo toog di ko seetaan tamit ndax série bi neex boo xamante ni xale yi bu commencé ñoom ñëpp a jóg. asalaamaaleykum man daal kontaan naa épisode 34 bi daal boobu kontaan naa ci lool <laughs> dem ba léegi dama koy seetaan di seetaan seetaanal rek. ah Cheikh Diagne de assumé na moom bu góor ñépp meloon ne moom de jigéen benn jigéen dootul dootul kii dootul lambati <laughs> kon jigéen yépp dem nañ lii la ñu wax ah, lii la wax ñun ay jullit lañ ay jullit lañ mais tamit euh, am benn jabar rekk sa aaw ne la doo takk ñaareel nga kii ko ci dëkk doxaan mu dul jeex loolu bàkkaar la lii moo gën fuuf su demee ba mën a takk ñetteel sax na takk. ba ñeenteel foofu la yem daal kontaan naa ci épisode 34 bi góor day assumé daal. asalaamaaleykum waa série maîtresse maa ngi leen di nuyu di leen ziare di leen ci weeru koor gi di leen baalu àq man de cas bi ma ci wax mooy wàllu côté biram ak joor joor mu ngi bëgg jàppale biram ba di bëgg a ci biir. te lépp biram la parce que joor xool bi moo rafet moom dafa laabir ci côté bi parce que moom biram bu xooloon nu mu mel ak jalika du du ko jéem dugg ba muy intéressé dinaan da ko bëgg a takk soxna parce que bu ko takkee soxna dina yàq côté ak jalika yàq boo xam te ne dootu ko mën a suude ba faw te ñaar ñooñu daf leen fekk ñuy ànd ay xarit lañu kon na biram xool naka lay def ba mu jéem a déglu conseil yu joor moo gën nu mu koy doxalee wasalaam waaw asalaamaaleykum mbokk internet bépp rek euh, di leen siyaar bu baax a baax di joxe sama xalaat rek ci épisode 34 euh, ci euh, théâtre wu Marème bi waaw man Hmm, li ma ci gën a neex rek mooy euh, kii um, seen tur yi la fa jàppatul quoi mais mooy ñuy def maçon rek euh, way kooku rapport bi ak euh, xale bu jigéen boobu muy bëgganteel quoi ñoom moom wax dëgg yàlla dan ma neex parce que góor gi day wane ni moom mi ngi wax dëgg quoi ndeysaan day wane ne xale bi moom amut am amam boo demewut noonu du koy wax dëgg daal du ko du ko du ko fen daal mais ñi ma ci gën a contre moom mooy euh, Marème la xuma ñaareelu sawaay bi mu tàkk euh, doon defoon lim dem maire bi affaire yooyu noonu seen kii bi wax dëgg yàlla dafa xaw a dafa dafa dafa xaw a salte daal man daal wax dëgg yàlla bëgg naa ñu xoolaat ko bu baax parce que ay maa koy ak ay xale te wax dëgg yàlla bëgg nañ xale bu nuy xool di gis loo xam ne dinañ ci mën a roy muy lu baax daal quoi parce seen wax ji ni ñuy waxee ak biñ euh, demee seen dim de maire boobu wax dëgg yàlla image yi man ñaawlu naa ko trop daal wax dëgg yàlla. Ah, asalaamaaleykum wa rahmatulah sëriñ ñi lay siyaare di leen bëggee di loo nekk mbaa yaa ngi baax a baax waaw bi neex na trop neex na trop waaw maram comme laa loo gars yi waxee rek maram ak daal ñoo bëgg a yàq série bi quoi parce que am na yoo xamante ni ñu ngi koy wax kàddu yoo xamante ni ñoom li leen neex rek lañ koy wax te war nañ mën a wax loo xamante ni day gën a rafet quoi. mu gën a rafet xam nga vraiment série bi neex na trop waa ñaari boo yël daal ñoo bëgg sauvé série bi quoi am na ñoo xaya parce que kii bi boo xoolaan ne série bi ay mag ñoo koy xoolaan quoi te xam nga ay njabootim toujours dañu toog a seen papa di xoolaan série bi wala ñu toog seen yaay di seetaan série bi te xam nga am na am na yoo xamante ni en ah, ndey doom waruñu ko mën a ceexante ba ñoom ñaar ñoom ñi koy dégg quoi loolu rafetut quoi vraiment série bi moom wax dëgg yàlla neex na trop vraiment waaw. ñoom ñaar daal ñoom ñaar daal ñoo bëgg yàq ñoo bëgg sauver ci bi quoi neex na parce que am na ñoo xam ne ngay jëlee dañuy yaakaar ñii dañ caga wala ñii dañ bëgg kenn daal ñu ñu ñu bëri dañ daal wax yoo xamante ni daanaka mooy loolu quoi vraiment série bi daal loolu da moo ko bëgg sauver ma ay jéglu nu baax baax damaa digg si damaa gis série bi maa xooloon série bi nii rek dégg euh, kii bi quoi ma gis ñu daj aari suuf numéro bi te yàgg naa kaa suivre quoi yàgg naa suivre film bi waaye démb moom dafa ëpp moom vraiment démb moom liñ see daal dafa xoo doy waa trop trop trop waaw maa ngi jéglu nu baax a baax di bëggee ñëpp di leen siyaare di encourage bu baax a baax neex na vraiment. siyaar siyaar siyaar waaw lu fi xew waaw lu fi xew de moom daanaka am na solo lool waaw siyaar naa leen kii nag seen gan gu bees la ñëw pour bëgg a bokk ci li xew ci kër gi waaw fii na am na solo lool waaw Marème de moom vraiment neex na ma ci affaire bi quoi neex na ma ci lool waaw ndax am na ci fulaam tamit mi ngi encaissé li mu moom mais tamit euh, daanaka laala tamit vraiment tamit na comprendre ne affaire bi tamit fi mu toll ni maanaam ëpp na koy loxo daal waaw mën a comprendre du ñëw mu dégg ko rek ñu xam ne awa ndax awa buur këram la waaw jali ko moom mooy loolu dafa ëppal waaw ah, jali ko moom daa ëppal moom tamit mi ngi nii bàyyi sëyam bi dem ci loo xam ne laa ni moom tamit biraan mooy loolu biraan su ko neexee tamit takk kële waaw ndax kee tamit amul dara tamit xarit lañ loolu du ci dara bokk ñu ndey ak baay man loolu laa gis waaw am na solo nag vraiment na solo lool neex na tamit fu mu jëm nii gis naa ci gaa yu bëree bëri bëri waaw na solo am waa maîtresse maa ngi leen di nuyu bu baax euh, di leen ziar vraiment seen série bi macha allah neex na torop ñu ngi leen di békkee bu baax di wax laal euh, la mu muñal xam ne wujj moom du dara baqu wërsëg la di wax nag mareem mu xaw a teegi tànkam tuuti parce que li mu joué moom ak seex vraiment rafetul ci comme xale yi ndaw yi koy seetaan ak yooyu waaw bëggoon naa soulever leneen tamit image yi ñu naan diw lu wax neexul diw lu wax dafa vulgaire diw lu wax dafa ëpp mais pourtant Novelas TV moo gën a déglace Novelas TV moo gën a bon fuuf te xale yi jigéen ñi ñoo koy seetaan seen papa yi toog bëgg seetaan leneen ñu ne papa suñ film bi mooy daw te bu jeexee dañuy jàppaat beneen mais imagine novela lim ñu woon ay foonante ay rayante ay film yu bon la lay tegal par rapport ak ki koy wax mais nag damaa bëgg laaj ci ñun ban monde la nekk tamit. bii moom damay participer bu baax jigéen bu mënul sa boor mooy ragal wujj gis nga jéeg bu pare dëgg capable coupable kooku ragalul benn jigéen bu wujjee man Amy Khare dama pas personnel na am sama jëkkër na am saa jabar ma nekk ñoo sans union ba xam dara fere ñeentiwuma gis nga ma ayee sama néeg sama jéegu bopp laa fa awalaa ah, de waaye chaque jour maa ngi koy tegal kii na ko taxaw xam nga li dama bëgg mu takk nga xam kan moo baax ak ki bon benn jabar ci kër baaxut ñi ragal wujj yëpp dañaa mën seen boor jeeg dëgg dangay pare boo ayee sa néeg mu wàcc wàcc wàcc ba muy moom néeg bu ne muut nga doon fa sa aaw bopp doon fa sa ñaareel bopp kenn du la tiim yow rek sa góor bu nangoo mer te ngay soumettre nag déggoo ma de mais fii jéeg jox xajam ji parewut ñoom la ñu takkal wujj ñuy dox ñu ñu leen takkal wujj ñuy daanu yësit ñu ñu leen takkal wujj ñu naan dama am déception góor boo ko bàyyi mu takk ci doxaan lay dee barki Seydina Muhammad te góor gu lay gëmal na la yow rek laa bëgg sama xol bi yow yàcci na ngeen baal ma ci terme bi de mais da lay fooye ndax waxu dëgg gis nga góor mën naa am urul ay ni këram génn du uti koo xam ne moo gën a ñaaw ci àddina bi yàlla moo bindee góor xelam du toox bëtam du du du du gis kenn mën naa am jamaa ci këram laa lay tegal te bu génnee moom tamit xool ak tamit bàyyi boo leen comparé comme yàlla ak yàlla waxal mareem na ko man de xaw ma awa xaw ma ñaareel mais man ku may fekk na fekk nga pare boo parewut duma la doo duma la saaga waaye bu ma ayee sa jëkkër eh nga ñàkk ko asalaamaaleykum wa rahmatullah ay ziar bu baax a baax baa yaa ngi ci jàmm alhamdulilah kontaan nañ ci série bi série maîtresse kontaan nañ ci bu baax ñu ngi koy rafetlu mais bëggoon nañu daal ñuy gën di éviter yenn image yi ñoom ñi koy joué ak di contrôle daal parole daal surtout Marème Marème daal war na di éviter ay parole daal. waa salaamaaleykum waa kii yéen a ngi ci jàmm maa di béggee bu baax a baax di leen nuyu waa di wax ne maa ngi suivre film bi mais mu neex ma lool nag seen série bi neex na moo torop torop torop waaw man na surtout Jalika man moom Jalika daf ma neex lool lool lool waaw neex na ma trop mais Marème aussi Marème neex na ma parce que Marème dafa joué moom loolu nit ku ragal la nit ku ragal la li muy def li muy def daf ko dunu naturel bëgg Cheikh Diagne waaw Cheikh tamit man naw ko fenn lool man théâtre bi li ma ci gën a rafetlu mooy Cheikh bi mu àndee euh, Marème dem lim demeer bi mu ñëwee Marème na ko na lay dugg ci kër gi parce que li ma la pareel foofu moo dàq mu réagir na ko dédét dama aaye fee dama yor ñaar ji mu ne ko jàppale ma valise bi man daal foofu moom góor dëgg dëgg la fi wane affaire du góor góor dëgg fi wane ma looloo ma ci gën a neex bi laaj parce que moom doonu ne daal dara feesu bëtam tey li ko kay wan lim de meer ba yëpp lim ko préel yëpp tey mënoon na loolu mën na fees bëtam ba mu ba ba mu saali daal parce que góor ñi jeng takk ñaare jeng dafa bari mais moom dara faraju ko bi mu jugee foofu la demaat ci ñaar aawam respecté na aawam mara Cheikh Diagne góor ñi doy la xool leen ko bu baax Cheikh Diagne daal macha allah ni mu joué fii yéen a góor ñu baree bare ba day booy day tax booy ree ñaar jabar nga yemale waaw. man a Jurbel laa dëkk théâtre bi daf ma koy suivre lool. asalaamaaleykum mbokk jullit yi ci ci réseau bi maa leen di siyaar bu baax a baax baax di ku nekk sa tur ak sa sant waaw man na euh, seen série bi série bu ma neex la man man naa wax ni si série senegal yi nii série bi bokk na si série bi ma gën a bëgg waaw en yéen di wane ay exemple yu bëri yoo xamante ne tey ñu bëri duñ ci bàyyi xel te eh, dafay jàngal nit ñi mooy cadre seex ah soxna si ah ni mu ñëwee ba takk ñaareel am na lu bëri yoo xamante ne tey nit ñi bàyyiñ ko xel mais dañ ko war bàyyi xel parce que soxna dafa nekk lu garaaw nu mu demee ah nu mu mën a mel soxna won que ni yaay oh, c'est ça laay nu ah nu mu mën a demee sa soxna won que ni yow yaay jëkkëram yaay borom këram yaay kilifam parce que soxna dafa xaw a moom loo ko woon rek loolu la lay jàppal quoi loo ko woon rek loolu lay dundax yow ba tax na seex tey problème nga nekk yëpp yaa ko teg sa bopp parce que sa soxna sa aaw am na loo ko woon yaa ngi dégg te ba tey jii nii mënoo ci jóge man seen trente man seen épisode trente bi seetaan naa ko mais ba tey jii nii yow jógewoo ba tey jëloo sa ba tey jiyee nii yow jëloo sa responsabilité sa responsable ci sa ci say soxna ba tey ji jëloo ko te danga ko war a assumer seex ñun tey am na ci ay célibataire yoo xamante ne ni wala bëgg nañ dugg ci say takk jabar mais buñ la mais ñun bu ñuy ci yow nii ah du dox de wala ñi am jabar bëgg am ñaareel bu ñu ñuy xool nii ci yow dañuy ragal takk ñaareel wala dangay wone sa bopp ñun loolu lañ soxla dañ dañ ñu gis seex ci film bi ah, ñu xam ni seex moo nekk nii quoi ah borom kër gi moo nekk ni kilifa gi yow la man loolu la amul lu may laajte seex sangel say li ngay doxalee si sa ñaar soxna yi bëgg nga leen ñoom ñaar ñëpp kon asimel salaamaaleykum waa maîtresse non mariée ñu ngi leen di siyaare di leen béggee bàyyi ngi ci jàmm bu baax a baax waa seen série bi ñu ngi koy suivre ñu ngi koy ñu koy daal neex nañu trop mais liñ ci wax benn commentaire bu ndaw bi ci def mooy su fekkee beneen yoon ndax série boobu passé na série bii ñuy wax passé na mooy fiñ demee liñ dem meel bi foofu noonu ak euh, simi dene bi mu sol noonu bu gënoon mën a yiw tuuti ndax xale yu ndaw yu koy seetaan ak yooyu ñoo tax waaw yaa ma gën a xam ak suñu culture ak yooyu noonu ndax Sénégal dañoo mën a waxte pour ñu mën a xajamal pour ñu mën a jaare pour mën a xajamal cere ji daal dafa yomb te yéen dañ leen di supporter te bëgguñu seen cere xajam ñu ngi bu baax Ablaye lañ koy wax depuis Dubaay. ça ci lu ngeen nekk yeneen ci jàmm eh, seen vidéo yi ngeen di def am na solo macha allah mais man dama bëggoon wax rek ci diggante joor joor ak Jalika waaw man la na koy saar Dior ak Dior moom jàpp jàppale nit tamit ba mu ba nar laa lor loolu du yoon loolu du yoon waaw parce que moom gis nga doom doomu doomu biram beeg jalika sax doom bi pour ñoom doom bi xamul dara du wax mais doom bi nee na bu ko yaay ji waxee pour mu nuyu tata dafa bañ mu ne ko tat joor baaxul mu ne joor baaxul te wax na dëgg parce que lu muy gis muy def ak papaam wala lu muy gis muy tëjog papaam loolu la mais Marème ak Kay moom mais man moom Marème moom mooy loolu daal Marème mi neexuma man man moom maa ngi ci laala waaw mais laala moom man moom laa bëgg mais laala ni muy doxalee moom mooy loolu jaaroo yoon takk wujj rek du tax nga daw waaw wala du tax nga dof mais seex seex bi bett na ko nag mais loo gis rek lu ñuy waxtaanee mu jeex mi ngi noonu seex démb am na gàcca am na na leen mbokk internet yi waaw mais épisode 34 bi neex na macha man de am lu ma ci critique quoi mën na ma def commentaire nag quoi mais critique moom du ma ko def quoi parce que donc noonu la mën a demee quoi waaw la noonu rek lu mën a comporté woo xam nga rôle aussi lu caa jigéen dem benn comportement rek nga yaakaar ne comportement bu lay continuer quoi non non. jigéen mënoo xam comportement pour toujours dañuy changer quoi surtout bu amagul wu ko mën ko ko xam moo tax tëb tëb di juger nit te neexagul ci yenn situation wala yenn condition yi loolu loolu erreur la quoi donc fi mu nekk nii rek nga mën xam exactement lan moo nekkoon ci lan la wa waaw bu fekkente ne nekkoon ci moom dëgg-dëgg mi ngi ci moom xam nga day naturel quoi du ko du ko déranger quoi waaw c'est pour dire que ni xam nga. maanaam c'est presque pareil ah xam nga am ñoom am na benn jour ñu wax ku ci nekk donc li la gën a ci kii quoi ci ci maîtresse quoi waaw mais fi mu nekk nii laal la ñu bëri la représenté ba ñu jigéen ñoo xam ne si comme la comporté woo ñoom ba doon ñoom noonu la ñu comporté woo loolu baaxul ko loolu baaxul quoi très sincèrement ñu dakkal benn koy pousse rek après nga bëgg a jaaree foofu gaynde di dof dof la ainsi de suite mën na ko supporter quoi waaw mais li ko fi indi moo fi indi mara moom même il faut savoir partager quand même c'est ça quoi quant à aussi donc lu muy may di di théâtre aussi am na ci yoo xamante ne si donc boo ci indi ay genre sujet tabou yooyu li nga bëgg a li nga bëgg a jàllale lépp doo ko jàllale de c'est ça quoi loolu il faut mbokk internet yi xam loolu de waaye ay vulgaire yooyu yëpp gañeen waaw man gisuma ko ci ah waaw boo ko gisee rek très sincèrement buñ ko buñ ko bëggee bàyyi rek xam nga. liñ bëggoon maanaam seen objectif kii quoi seen objectif seen objectif duñ ko atteindre quoi waaw duñ mën a atteindre objectif bi quoi liñ jub liñ bëggoon ci taar bi dëgg duñ ko mën am quoi c'est ça quoi xam nga Sénégal nag dañu xaw a tardé tuuti ci ci côté boobu quoi y a beaucoup de sujets loo xamante ne si dañ koy graawal quoi te pourtant mën na bañ a graaw noonu quoi waaw c'est pour attirer l'attention des jeunes rek des jeunes femmes yi nga xamante ne si donc donc ñoo ngi doog ci négocier ainsi de suite quoi waaw pour yeete leneen quand même il faut ñu xame ko noonu quoi. c'est ça mais vraiment personne moom ngeen xam ne moom donc xaw melul nii et puis yéen a ngi koy directement comme quoi que moom moo ko moo ko jublu quoi répétition la ñoom ñëpp ñoo ci ànd li ko lii ngay wax lee ngay wax ainsi de suite mais il faut pas seulement xam la personne de Marème comme quoi que moom moo ko xam nga moom da ko war a bàyyi déedéet c'est toute l'équipe ah c'est ça quoi di leen aussi à ce que ngeen continuer ni ngeen di def quoi du courage jaajëf. salaamaaleykum si maîtresse a film bi neex na torop ndax film laa ko mën a tudde waa ndax ñoom li ñuy def nii ñii ñu ngi koy seetaan foo nekk ci àdduna bi dañ koy seetaan ndax ñun ñi nekkul Sénégal moo ñuy wettali waaye dañoo war a seetaat bu baax seen image yi ñuy wone rafetul ci ñi nga xam ne dañoo yor ay doomu jigéen ñun ñi nekk ci àll bi bàyyi suñu doomu jigéen sax dañuy tiit buñ koy seetaan parfois ndax dañuy xalaat ne est-ce que suñu doom yi duñu roy ci ñuy def nii xam nga kii ni ñuy def démb ci lool di film rek ngeen tëdd noonu ci lal bi sol lu gàtt cëram yëpp nekk ci biti loolu rafetul ak seen façon terme yi ñuy wax rafetul am na loo xamante ni rafetul ci dëkk boo xam ne dëkkub jullit lañ xaaj bi yëpp ay jullit lañ mag di ko seetaan xale di ko seetaan nañ seet bu baax lañuy def ndax ñun ay jullit lañu am na loo xam ne rafetluwuñu ko nañ gën a xool seen image yi gën a xool seen ni ñuy waxee ndax dañoo yor njaboot gu jigéen te bëgguñu ku leen yàq nag wax dëgg yàlla ndax mën ñoo seetaan loolu yaakaar ni loolu lu war a am la ñu génn def ko tamit boobaa tam day metti nañ ñu ci dimbali bu baax di xool seen image yi ñuy def nañ koy gën di rafetal kenn newul film bi neexul mais nañu rafetal image di cëral nag nit ñi nga xam ne ñu ngi toog di ko seetaan ndax ñëpp koy seetaan mag xale ñëpp ay seetaan nañuy cëral nit ñi di rafetal image yi loolu dina ci baax trop. Ah, maa ngi leen di nuyu lu xew tv bayeen ci jàmm di rafetlu seen liggéey rafet na mi ngi jaar yoon macha allah ah, commentaire yi am na solo mais am na si yenn commentaire yoo xam ne moom franchement poman man wax parce que fii moom Sénégal la lu fi yàqu bari na te kenn waxu ko kon nag kenn tooñ série yi waaw ah, ku ci nekk daal ku bëgg baax ti nga baax ku bëgg a bon nga bon. l'essentiel mooy euh, boo seetaanee théâtre yow fexeel ba jël li nga xam ne moo ci leçon de morale li ci baaxul nga bàyyi mu dem loolu rek mooy l'essentiel beneen bi aussi mooy moi je comprends pas Dior franchement lu mu bëgg man xaw ma ko xaw ko parce que euh, euh, je comprends par daal Dior bu mu bëgg parce que li muy def nii ah fu muy mujjee ak Jalika xam naa moom du neex du neex de mais mère bi aussi. Euh, la maman de euh, Racky ah, sonal na Racky trop franchement sonal na Racky trop mais naka bàyyi mu def li bëgg parce que chacun à chaque fois waaw naka bàyyi Moustapha la bëgg naka bàyyi ak Moustapha point baax parce que Sénégal li ñu mënta comprendre mooy dañu war a comprendre que ni lii ay yeete la ay leçon la mais aussi lépp dañuy bàyyiloo xel euh, société bi moo tax ñuy théâtre lii des fois ay actualité parce que euh, boo seetloo Amina doomu Jalika bi gis nga bi mu gisee jox papa ji dafa gëmloo jox que ni euh, c'est une gamine mu ne maanaam daal du nettali mën na ko ko bañ wax affaire yooyu noonu fekk am na lu jàpp ci bopp bi parce que dafa jàppe woon jox comme euh, copine copineu yaayam donc bu demee ba gis jox di fréquenter papam day am lum def ci boppam donc euh, raison pour laquelle bi mu dajee ak moom ci kër yaay ji am na num réagir te am na num ko xoolee dina xam ne xale bi y a quelque chose donc nga gis ne xale dafa dafa dafa dafa mën a capturer xale dafay dafay dafay bàyyi xel moo tax xale dañ ko wax di bàyyi xel à tout moment parce que buñ jàpp ni kii xale la rek ñuy def lu ñu neex ci kanamam waaw parce que xale dafay copier waaw xale dafay copier loolu moo tax un jour mën na dema dem ba màgg di ko xoolee wala mu dema dem ba yaakaar ne lu baax la asalaamaaleykum waaw maa ngi leen di siyaar leen bége di kontaan ci seen film bi série maîtresse man daal li may kii Marème laay kii benn côté parce que man Marème am na yoo xamante ni waru koy def parce que Marème dafa bokk fu baax mhm, dafa bokk fu baax benn seetaan naa benn émission ba mu doon def di expliquer macha allah ci famille bu baax la bokk jàng alxuraan kon am na de solin yoo xam koo sol di ko génne ak wax yoo xam waxi xaw a bazaar yoo mu di ko bàyyi ah man ma day neex na ma trop moom waaye man loolu rek ci laa koy condamné na bàyyi yooyu parce que loolu xam nga allah yi muy sol yéen rafet na te waaye yenn saa day xaw a génn gaam comme démb fi mu gi daw waaw na kii daal doy waa na bàyyi yooyu waaw moom rek laa am nag wax ak moom foofu. daal wax dëgg sax daa nekk si ba wax si man moo tax sama mbokk naar la ok salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ndokkeel ñëpp nag si weeru koor gi waaw ma bëggoon na ñëw rek ci suñu série bi nga xam ne mooy maîtresse vraiment série bu ma neex la man dama koy seetaan du ma man bu commencé man lu ma doon def bàyyi naa ko bu ma ko seetaanu télé sax dama koy ko dama koy daw seetaan ko YouTube wax dëgg yàlla parce que euh, série bi dafa nekk série boo xam ne réalité la lu ñuy dund la fii ci Sénégal waaye laal la euh, kaawu laal la man moo ma gën a def problème parce que laal la dafa siggiloon aawa yépp mais dafa dem à la fin mu yàq lépp lu mu joué woon rek lu mu defoon rek yàqu na ko ci diggante ñi quatre épisodes yi parce que moom dafa wane woon dignité wane nit dafa war a téye jëkkëram wane fulla wane fayda wane loo xamante ni daal jigéen ñëpp dañ doon xool ci moom mais boo defee yenn yi ba ñëpp kontaan waroo ñëw rek ñu takkal la ujj rek nga dof dof bi man d'accorduma si laala dafa waroon toog gérer marem ñëw lii xew ci marème la waroon a jóge mais pas la parce que Lalla dafa dafa wane woon bon exemple mais bi mu dofee di def affaire yoo xamante ni doo comprendre wér ñu foog ni si la yam muy doyadal jëkkëram di ko ñàkkal fayda daal man kontaanuma daal la daal kontaanatuma si moom bëgg naa ko trop nag mais kontaanatuma si moom marème nag ku ma neex la marème moom ku ma neex la mais su ma sañoon mu wàññi yenn affaire yu vulgaire yi daal su ma sañoon dina ko wàññi parce que série bi man li ma gis ni nit ñi dañ koy seetaan mag da koy seetaan xale da koy seetaan kilifa yi dañ koy seetaan su ma sañoon mu xaw a wàññi tuuti tuuti rek loolu moom bu ko defoon rek macha allah série bi dina gën a neex parce que li ñuy wane lépp am solo wax dëgg yàlla bu dee côté Marème côté Lalla côté Jalika. ak moom daal côté yëpp am change macha allah côté yëpp am change mais daal Marème moom su ma sañoon dina wàññi tuuti parce que neex na ma trop mais des fois day xaw a def yu xaw a day fil day vulgaire daal si pour nga di ko gis nga toog sa njaboot di ko seetaan day xaw a doy waar nga toog say kilifa di ko seetaan day xaw a doy waar loolu daal laa ni woon dinaa ko participer mais moom maa ngi rafetlu trop trop lii lii moom macha allah kontaan nañ ci lool lool lool.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 waaw maa ngi bu baax lu ci dëng lu ne maa ngi koy jéglu bu baax xam nga rek xel moo motu